màu to découragé de li ma xam ne yàq yëpp dañ nee na du fi jóg ah man de yéeme naa mbokk yi li ngeen def bàyyi leen ci jàpp waaye kontaan naa si yéen nag seen liggéey rafet na lool te tey boo leen di jabantaay di topp mukk xalaatoo leen ko. waaw waaw liggéey liggéey def seen bopp وقت سيدي حتى يجرب di tey man sama boy bi loo ko sant du ko def xoolal ma ay commande jàmbur laa yor ay commande jàmbur mënu ma fexe mënu ma fexe fexe fexe fexe ba mu ñëw defal ma li ma ko wax à chaque fois à chaque fois man man man tapi, man man man booy bi jaaxal booy dama koy daax booy bi man dama commande jàmbur yi tamit ma yor tamit xam nga ni lii mi ngi ba ba ma ba tey man maa obligé sax di jël di defaral sama bopp xam nga lii lii mi ngi seet lii mënoo ko def client. mais kontaan naa si yéen bu baax a baax seen liggéey rafet na mais kii am na ko néew moo xam ne moom ah yàqul dara si fan mais boo xëyee dégg ko nuyu man su ma xëyee dama bëgg di jaar fii nuyu ko waxtaan ak moom tuuti dara xagee ko xam nga yor koor lañ ne te xam nga il faut que dafa def coloré te ku digi ba pare saa damay def ceeb te ko coloré rek ba xoolee gisoo lañ ma. aywa daawa daawa. naan kii bi sama père. waaye yéen neex leen. waay waay dégg nga loolu. waay daaw daaw. waaw. nga xoolal ay ko mu taal. waaw dëgg la dëgg la. dafa liggéey jàpp. eh commande waay commande. commande baa yi commande baa yi dafa. dama commande bi. yow xam nga ni man du ma yàggal benn. ay ay dama dama dama ay naaw naaw naaw man li ma gën a sos yow. waaw doo yor kuddu. dëgg la naa la naa la kuddu. yaa dégg temps aywa sama waa ji. maa yaa xam ne ndeysaan mais lekkal lekkal maa yaa xam ne moo tax dëgg la. non mais kooku ndax sax ma koy manqué. dëgg la. waaw daawa daawa yaa nekk pompiteer waay. waaw waaw waaw yow soxla waay. dëgg la loolu ndeysaan. man dama feebar. Badou man. lu ba lii nga doon doy ma ko. man damaa woor ba ci digg koor liggéey na. dëgg la. liggéey. weeru koor ñàkk ko woor du de mais liggéey moo lay jàpp ay liggéey. dëgg la dëgg la. te mujj maa bañ. dama mbéy mu jaay bi dama mbéy. non non. mooy bi gaañ nañ. Hmm. aywa yàlla yàlla yërëm waay. waaye sa pomme de terre bi neex waay eh waaye pomme de terre bi neex waay eh waaye pomme de terre bi. dina jaral na ma wala. moo ko di yokk ndox mu amee xaaraan. c'est ça mais nag loolu xamul pomme de terre bi. Hmm. dañ ko bàyyi léegi mu ñor léegi. ñu ngi leen bokk dafa ko léegi. waaw yaa dégg dégg waay yaa dégg dégg. moo tax mu sax. waaw yow. am na balaa xam ne yu mu dégg. waaw dégg rek. Dabo. waaw kii solo Dabo la ko wax naka la. waaw naa indi rek. nam naa la jaay waaye a loolu bëri bëri. waaw maa ngi déglu loolu nekk ci waay waaw gis nga rek nan la jox indi rek. Père ziar naa la de. ba Dabo. waaw taw bi ah. waaw taw bi ah. seen boole seen waaye Pow Diop Saafara. waaw ok waaw waaw waaw mun naa ne mun naa ne mun naa ne loolu mun naa ne. Père As. la. eh kii Père eh, As la ba Dabo. waaw Dabo kii Père As. waaw sama père bu baax la. ah bon sama père bu baax la. fii daawa daawa daawa. est-ce que wax naa damaa feebar te tey rek. amul loo wax amul loo wax. amul loo wax. kii moo baax ndey baax waay. yaa baax ndey baax waay. non père. Marché Baye dafa ndaw ne ne la wéyal kaay. damay déglu laa wax. Marché Baye dafa ndaw ne ne la wéyal wax laa wax père. yow looy lekkal lii lii dafa maa doon sa baay dina meloon. maa ngi woon lekkuma lekkuma lekkuma. da ngay manger. damaa feebar. non père père père du loolu ma. waaw xaaral ma man bàyyi ma la

nhập rồi rồi chị mình chị mình cao đã nhập rồi nó được rồi tính rồi tiền ra mà chịu Ramadan